allo allo allo he faw fawlu funnaange amaru yawhirnaange inna allaha anna allaha billi baadi basiran jinna mono kobi tolotege talatege kantan annabi kantan ley uddi dow uddi hakkunde ndenji di kidon jinna fofowlu funnangue amaru yawhirnangue inallaha anallaha billibadi bashiral jinna saamiri sa saamiri santemiri sira dege dege gumgum ma fote sommoy rommoy sommata rommoy seƴƴele weƴƴele seƴƴetele weƴƴele nangumo fajiru najiru aljuma bentenen bintiyane koni camone koni damaka saamiri sa saamiri sante sira dege dege gungum ma fote sommoy rommoy sommoy rommoy sommoy rommoy sommoy rommoy sommata rommoy seƴƴele weƴƴele seƴƴetele weƴƴele nanngumo faajiru naajiru aljuma bentenen bintiyane koni jaamone koni ɗamaka he c'est qui c'est qui c'est qui yawla kan c'est haɓɓe mo jinna nangemo atake aprose atake aprose atake aprose aprose aprose aprose kiti saya boloya allah saginande allahu hulu allahu samadu alfayu jeyri alfayu batimu kurjinna sojinna olde koroyanna nabi yanna nabi nure nurete sojinna kiisi kaasa koye kaasi samse samarosi samse samsi samarusi samsi samarusi samsi samarusi samsi samarusi samsi samarusi samsi samarusi samsi samarusi samsi samarusi samsi samarusi bàyyi ko yow la kan c'est qui c'est qui Hey, c'est qui yow la kan c'est qui comment tu t'appelles noo tudd comment tu t'appelles hey noo tudd ñëw naa nangu na nangul nangul waxoon naa la démb waxoon naa la nangul

boobu du ma nekk nit. aw ma doole ab yi xeex nañ ma fi. c'est rien c'est rien yaakaar ah, dama ñëw liggéey si. dinaa la góor fii ah danga dellu. sama kër dina indi fi ñoom waa kër xam ko dina indi fi fekk dina la. bu baax dinaa Boulaye su ma génnee rek may bàyyi pouvoir. c'est préféré c'est préféré mais que. yow waat xale bi. c'est le grand ma gis ko si yow teel a fi ku la teel a rien teel a rien damb yow. teel a rien xam nga ma. c'est plus grand que yow man mii xam laa ilaha illallah muhammadu rasulu sallallahu alayhi wa sallam. te wir te faatiya ak salaatul faatiya yow da nga xam loolu. vraiment xam nga toog bàyyi xale bi xale bu ndaw la. non non pas encore tey du tey du mën a yomb tey tey aw ma doole. mu lay génne ma. pas encore génne ma si Mariam ma dooral la kii. pas encore mu lay génne ma kii ay njëkk du woon fii. pas encore. mu lay génne ma. c'est pas am mu lay tuum naa génne ma. génne ma mu lay. maa ngi am boo am kattan. kii maa koy door. lu nekk si ma nekkul. yéefar la yàqkatu der.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 xam nga mbaxane bi fimel ko bii laa njëkk sol ci mbaxane tigre gëj naa ko sol gis nga ko nu mu mel bii laa njëkk a sol ci mbaxane tigre tey kon naruma jàmm tey bii laa njëkk a sol ci mbaxane tigre bii mooy première mbaxane tigre bu ma njëkk a sol moo ngi woon ci biir ci ci bagaas yi gis ngeen ko nu mu nu mu commencer gis nga ko ñu mooy mbaxane tigre gis nga ko bii laa njëkk a sol ci mbaxane tigre kon tey naruma jàmm hmm? tey bugguma jàmm maanaam utuma jàmm bugguma jàmm tey waaw soxlawuma jàmm tey waaw gis ngeen kii jinne farmason la farmason loolu moo bari ci dëkk bi ñuy joxe seeni doom ñuy joxe seeni mbokk seeni xarit seeni àndandoo ngir am alal kii formation la mbokk yi comme ni ngeen ko déggee <coughs> euh, dégg ngeen euh, la maréchal donc la khalife général des djinns the king of the king tey jàmm fu mu fanaan du fu fanaan waaw euh, Thierno Moulé Sow wax ne tey narul jàmm ndax gis ngeen mbaxana mi nga xam ne mbaxana tigre la mu dencoon ko ci bagage yi mu yàgg fa trop tey daf ko génnee donc taxaw pour jàmmarloog jinne yi nga xam ne ñoo fi nekk donc nga xam ne kii jinne euh, faramaçon la donc bëggul dugg tur tur yàlla <coughs> ah donc mu ngi manifesté wu euh, di wane dooleem naan moom capitaine la mais donc marabu bi moom tamit jël na ay matuwaayam taxaw ngeen gis beneen jinne bi moom mi nga xam ne moom nee na dafa bëgg rek ñu génne ko comme tuub na mu daal di dóor ki nga xam ne moo di jinne faramason bi mu nekk donc lu doy waar ngeen gis ci beneen côté bi mhm. mu ngi def ay signes faramason nu ngeen ko gisee ni signe faramason yi il fait des signes de franc-maçonnerie waaw donc c'est un esprit un djinn qui est en train d'hypnotiser euh, ce jeune homme euh, qui est un franc-maçon actuellement vous voyez donc euh, les signes qu'il est en train de faire mais le marabout Thierno Moulay Sow qui a sorti son chapeau de tigre qui a dit vraiment qu'il n'est pas du tout prêt à laisser ce djinn vraiment maltraiter ou bien malmener ce jeune homme donc il est prêt à tout vraiment pour faire sortir le djinn du corps de ce jeune homme et on voit de l'autre côté le djinn qui s'est déjà converti marabout, le Khalif général des djinns, le maréchal Thierno Moulay Sow, de le sortir donc du corps de la femme pour qu'il puisse tout simplement euh, battre ces djinns euh, francs-maçons. Donc vous voyez, ça sera une scène incroyable. On voit de l'autre côté euh, l'autre djinn qui est en train de parler. Donc on en trois actuellement qui sont en train de se manifester. Donc une scène assez incroyable. Le marabout Tcherno Molesso qui fait euh, une euh, pause, donc euh, une séance d'observation pour voir exactement ce que les jeunes sont en train de faire pour pouvoir maintenant leur faire parler et leur sortir du corps donc, de ces personnes possédées. So, ladies and gents, dear followers of TMS TV, as I have explained in French, you see then a very unbelievable, situation right now because we have this very jinn who is, not a Muslim, but he is hypnotizing this uh, this very young boy, and this jinn is saying that he's a captain, he's a great person, but the Marabu Charnamulay, so having his tiger hat being so ready to fight against this jinn and to make him get out from the body of this very uh, boy. You see, and on the other side, the very jinn who is converted in Islam, so ready to be taken out from the body of the woman. And he said that this very time he will be beating this jinn. So then you see Cherno uh, Moulay Sow looking at the jinns, seeing what they are doing right now. Because we have seen this very jinn making, you know, every kind of signs, you know, pharmasonic signs, you see then, uh, very incredible, very unbelievable. So the matter Honorable Charno Moulay Sow fighting the jinns, so ready to fight with him and to make him get out with the, you know, in the body or to get out from the body of this very boy. So Thidan, what is happening? I give him the floor and let him, uh, you know, deal with his healing sessions. C'est qui? C'est qui? yow la kan hey yow la kan c'est qui yow la kan hey yow la kan oui oui c'est quel ah? capitaine quel capitaine c'est le avec moi quel capitaine Quel capitaine Comment tu t'appelles Hein Comment tu t'appelles tu t'appelles wolof Tu comprends wolof yow la kan noo tudd noo tudd hé noo tudd noo tudd he noo tudd noo tudd c'est par c'est par comment tu t'appelles noo tudd je m'appelle euh, comment tu t'appelles Comment tu t'appelles Je suis Lamine. Hein Je suis Lamine. Je suis Lamine. Lamine Je suis Lamine. Lamine du combattant. Lamine du combattant. Lamine du combattant. Tu es l'ami du combattant l'ami de qui Explique-toi, tu es l'ami de qui

Pourquoi tu suis ce jeune homme Quoi Quoi Toi Quoi Tu dis quoi Pourquoi tu suis ce jeune homme Pourquoi tu dis c'est pas encore l'heure de te capturer Parce que je voulais le tuer. Tu veux le tuer Oui. Pourquoi tu veux le tuer euh, Parce qu'il veut devenir quelqu'un. Parce qu'il veut devenir quelqu'un Oui. Mmh. waa dégg naa léegi lu tax mu bàyyi loo ko jàngam depuis kii mu nekkee xale moo ngi feebar yaayam daw na ci ba sonn ak papam moom kañ la ko dugg quand. tu l'as suivi depuis quand. hein réponds. avant son naissance avant son avant sa naissance avant sa naissance. avant sa naissance. oui. oui. c'est un Hey, regardez. On, on se prie. M'envoie ici. M'envoie. M'envoie. M'envoie. Il est dans, même lui. Même lui se trouve dans son corps. Oui. Parce que c'est un homme. C'est un homme d'avenir. C'est un homme d'avenir, quoi. Oui. Mais, mais on a vu les signes que tu es en train de faire. Pourquoi ces genres de signes Oui. Tout par ces signes. Oui, parce que. Je suis pas. Parce je que. Suis, je crois personne. Tu je ne crois, hein? Je, je ne suis pas un croyant de Dieu. Oui. Tu crois être Dieu? Oui, non. Non. C'est non. Non. Je suis quoi? Je suis un. Je suis un. Mmh. Mmh. Mmh. C'est bon, assis. parler avec nous. Tourne, ici. Si on te demande des questions, nous répondiez. Ah, il faut répondre aux questions. pour toi aujourd'hui. OK demande-lui les questions. Voilà, c'est ça. Il faut répondre aux questions. Hein. On a vu les signes. Explique-moi exactement pourquoi tu fais ce genre de signes. Parce que je n'ai pas compris. Pourquoi ces signes Parle-nous. Parce que ça, ça fait partie. Ça fait partie de quoi Ça fait partie des membres du franc-maçonnerie. Ah, ce sont les signes de, de la franc-maçonnerie Oui. Donc toi, tu es franc-maçon Oui. Mm -hmm. Oui. Et tu crois être assez puissant Oui.

parce que c'est un homme de c'est un homme d'avenir. Euh, quelqu'un très important dans monde. dans le monde. est-ce que tu es prêt à sortir parce que là tu es euh, dans la maison de Thierno Moulay Sow donc euh, le maréchal le khalife général des djinns est-ce que tu es prêt à sortir du corps de ce jeune Hmm? non. parce que c'est pas laaj ko xale bi lu tax euh, bu mu ñëwee fi démb dëgg dagg tiketam mu woo seen waa kër seen waa kër nekkoon na ñëwaat laaj ko ba xam lan la lan la ba xam moom moo ruube seen waa kër walla lan la. parce que foog ñu laaj ko mu mu wax day tax nit ñi gën a yeewu parce que ñi ñaa ngi ñuy seetaan ci TMS bi saa suñu jàppee jinne dañuy bëgg ñu waxloo jinne bi pour ñoom ñu mun ci am expérience ñu mun ci yeewu alors explique-nous un euh, donc hier euh, le jeune homme était là mais quand il a acheté son ticket il a appelé euh, donc les membres de sa famille donc ces membres donc, ont voulu tout simplement le faire retourner. Est-ce que tu es à l'origine de cette situation hmm? Est-ce que c'est toi qui as causé cette situation C'est toi, qui alors C'est mon ami. C'est ton ami. Qui est, est ton ami? ami Qui est ton ami hmm? ne connais pas son nom. ne connais pas son nom C'est un franc-maçon comme toi. Oui, je l'ai dit. Tere, Tere, c'est lui. Pour que je dise que. bu seen xel. dafa bëggoon jaxase seen xel. foofu yëpp daf koy yëngal. daf koy yëngal. son père. Mhm. son frère sa sœur. Mhm. Tout le monde parle. Tout Parce que s'il vous plaît, parle. S'il vous plaît, Parce que moi, man samay nit man ak bokk lu bëgg. lan ngeen bëgg. ak say naataango lan ngeen bëgg. nu ko yàlla bëgg nu defal lañ bëgg a yàq hmm. loolu du am. ça ko yàlla defal lañ bëgg yàq ko. léegi moom lan la ko yàlla defal ngeen bëgg ko yàq. tontu ma gannaaw yaa ngi wax olof. ça ne s'arrête yow lan nga yow lan nga. eh yow lan nga yow lan nga. yow lan nga yow lan ga réponds. je suis le grand. tu es un grand. un grand capitaine. Ah, mais tu prends quel genre de forme tu es un serpent un lion ou quoi un tigre. ah. ban jinne la leen di fàttaliku ci jinne yu ma jàppoon fii. ak Houda Shakir mooy euh, troisième ambassade Iblis Muhammadul mooy mooy ki nekkoon ci xale bu góor boobu noonu waaw léegi nee na capitaine la léegi nag day wax ak nit ñi mu expliquer ñu ñu xam <coughs> nu jóg ab na jóg ab laay ah dangay ngay siggi wax ak nit ñi nga expliqué. tu dis que Aouda Sakir rien et toi tu moom kooku rien la kooku yow la kan. kooku xeex moom du ma ko xeex ak yow. yow la kan ginnaaw da nga am doole yaa ngi koy wax yow la eh, kan. foog répond foog mu wax ak ñun wala ñu sonal ko ñu defal ko bagage na wàcc. mun nga wax wala munoo wax. su waxul mu ñu wàccee ko ci su mu wàcc kii foog mu ñuy wax mu ñuy tontu pour jaamu yàlla yi mën a xam parce que kii parents am lu mu ñëw fii parents am loolu neexu leen déjà bu ñu seetaanee vidéo yi dañuy xam ne kat ah, liñ ko fu ko daan tere lii jot a gis gisuñu ko fenn parce que moom papam ak yaayam ak ay magam ñoo ngi doon coow lu mu fi ñëw déjà li mu fi def su ko fi def fenn jinne bi niñ ko capturé fii musuñu ko capturé fenn te sëriñ yi nekk ci internet bi yëpp la dem lépp la dem léegi nag foog jinne bi wax. ils sont rien ils sont rien foog mu wax. xamuñu dara. lu tax nga ne xamuñu dara. duñu dara. fan ak fan nga dem. fan nga dem. na wax. hey mun nga wax wala munoo wax. mënaluñ la dara fan ak fan nga dem fan ak fan nga dem ci ban sëriñ nga dem est que li ma la def nii mus nañ la ko def est-ce que li la def nii ñoom def nañ la ko léegi fan ak fan nga dem yan euh, millier nga jot a dem fan partout fan ci Sénégal c'est passé partout affaire bi

je parle je parle seulement sur les marabouts. Quel marabout? Vous accompagne avec lui. C'est toi. Donc c'est toi qui accompagnais le jeune homme quoi? Oui. Avec, euh, au niveau de quel pays ou bien vers quel marabout, dans quel village, dans quelle région? On veut savoir. Partout au Sénégal. Partout, partout au Sénégal. Oui. Il a vu beaucoup de marabouts. Il l'accompagnait pour leur montrer qu'ils ne sont rien. Ils sont rien. Combien de marabouts en tout? Hmm. Presque quarantaine. Presque de marabouts. Hmm. Tous les marabouts, qui parlent hmm. dans les réseaux sociaux. Même les marabouts qui parlent dans les réseaux sociaux. Il était parti là-bas. oui yan maaraabu ñooy wax ci réseaux sociaux yu mu yu mu dem ak xale bi foofu te mënuluñ ko dara. est-ce nga ñu wax yan maaraabu la exactement. ci ban mara bu nekk ci réseaux sociaux yi nga jot a dem. kan. kan. Ah, sëñ Bas. sëñ. sëñ Basir. sëñ Basir waaw. deux. sëñ Xaas. sëñ. sëñ Ablaye Diop. sëñ Ablaye Diop. trois. Metako Camara. Metako Camara. quatre. Mm. Pape Mbengue. Pape Mbengue. cinq. Mm. Oustaz Faye. Oustaz Faye. siis. Alseyni. Al. Alseyni. Alseyni. sept. ak ban marabu. la fille là la ak ak Kër Mbaye Fall. daam bu nekk Kër Mbaye Fall njaago njaago la dem nga fa ak moom jugde xale bi mais mënalu la dara moom nu mu tudd Babacar moom xale bi Babacar la tudd sëriñu njaago bi nu tudd moom <sighs> léegi buy dem ci marabu yi yow da ànd ak moom walla et partout et partout. la lu xew exactement lan moo tax ñoom mënuñ la gis. am na ñu ma ciy gis am na ñu ma ciy gis mais xam nañ ne ma teera. am na ñu lay gis waaye xam nañ mënaluñ la dara. oui. léegi dañuy dañu lay xool bàyyi la wala. dañ naan ay sangat. ay sangat. après. parce que xam nañ ne hmm, bu ñu combattre man duñ la mënal dara. xam nañ ne duñ la mënal dara. est-ce que liñ la def fii tey mus nañ la ko def ñoom. sëñ Samy Vicky Sarr. nee na mosu ko dund. Hmm, sëñ jamais vécu ça. léegi lu tax ba nga duggee sama néeg xale bi génnaat ba mu duggee ba tey kii ba tey ñeentuñu ñu bët après xale bi man xam naa ne jinne baa ngi ci moom. ma ne ko na dem indi ticket bi ba mu demee indi ticket bi rek jinne bi commencé déclenché. dugg dafa dafa génnoon dafa dafa micro yi ñu wax loolu continuer ak jinne bi parce dafa am solo waaw léegi yow leeralal balaa ñuy dem ci kële deux fois saa bu rangam ñëwee bu waree dugg mhm. bu nit ki génnee mu xam ne moom mooy dugg du ñemee dugg day day génn nii lay jaar maa ngi ko seetlu deux fois def na ko mhm. troisième fois kii dafa taxaw insister waaw xaar ko koy ba mu ñëw mu doog a dugg te teew bi mu duggee génnaa na jël si ticket duggaat nag foofu lañu déggee nag mu mu déggoo fois da doon moom sawul woon si dugub saa bu rangam jotee rek bu gisee potam na taj bu nit ki passant bi génnee rek. mu affronté génn mu gi dañuy dugal keneen def na ko deux fois troisième kii dafa taxaw. insisté xaar ko mu doog a ñëw waaw. donc ko yàqal ko njàngam. donc di ànd ak moom ci sëriñoo sëriñ fii ci senegal lu mot nee na ñeent fukki sëriñ dem nañ fa mais kenn du ko ci mënal dara parce que moom mooy gunge xale bi donc di di di neenal ñooñu donc mu nekk lu doy waar même nee na li mu dund fii mosu ko dund. nee na ñooñu xamuñu dara donc fii la ñëw daal di daanu dugg na rek euh, génnaat jël ticket commencé donc daanu donc ñu bàyyi euh, marabu bi mu xool euh, ñu gën ko wax loo xool naka la ñuy def ak moom. Hmm. Alors donc vous voyez, euh, chers internautes, chers euh, téléspectateurs, il s'agit ici d'un euh, djinn, d'un esprit assez puissant. donc euh, qui accompagne, qui a pu accompagner le garçon, euh, le jeune homme, euh, dans plusieurs endroits. Ils sont allés voir une quarantaine de marabouts, mais qui n'ont rien pu faire. il dit que ces marabouts ne connaissent rien exactement. Donc ce qu'il a vécu ici, il vient de vivre ça aujourd'hui. Et c'est pourquoi les membres de sa famille même ne croyaient pas aux marabouts du Sénégal, parce qu'ils que vraiment tu es en euh, de gaspiller ton argent et tu ne seras pas du tout soigné. Chaque fois que tu pars chez les marabout, ils ne pourront rien faire pour toi. Mais aujourd'hui, il a vu quelque chose d'extraordinaire parce que quand il est entré donc euh, au niveau donc de, de la salle de consultation du grand marabout du maréchal Thierno Moulay donc il est tombé et le djinn est en train d'expliquer plein de choses. So ladies and gents, dear followers of TMS TV, you see then this very young boy who is just possessed by a you know, who is saying that this jinn is explaining that he was following, you know, the boy to every kind of marabu, to every kind of, you know, marabu in Senegal. Some like 40 marabu in Senegal, but this kind of mar these kind of marabus uh, cannot do anything to him. And then he's saying that this marabu da, uh, don't know anything. But today, what he's living here, what he's living right now is something in, unbelievable because, you know, when he just enters, you know, the room of Cherno Moulay Sow, he just, you know, fell down and then the jinn was expressing himself, saying, you know, many things. <coughs> the jinn explaining that he is even, you know, trying to destroy the life of this very boy because when we asked him that uh, whether he is ready to get out from the body of this very boy, the jinn was saying, no, no, I am not getting out because it is not the hour yet. So the jinn is saying that he is just, you know, so uh, ready to kill this boy. That's his aim, and he is just willing to do his best to kill his boy because uh, they know uh, the spirit, the jinn knows that it is a good boy. It is a boy who is, you know, uh, a man of God, and then, uh, you know, they are doing him and, you know, know his friends are doing their best so as to kill this boy or to destroy his life you see then what is happening here it is really unbelievable a very young boy who couldn't you know keep on learning who couldn't you know uh, live nicely, who couldn't gain or earn his life nicely because of this very spirit, of this very jinn hypnotizing him and preventing him from living nicely. So we just give the floor to the Marabu Thierno Moulay Sow, uh, the king of the kingdom, Marshal. He will deal with his healing session and then we'll be trying to uh, let talk the jinn again and again and see uh, the form of the jinn exactly and see whether he is a snake, whether he is a lion or whether he is a tiger and then after maybe we're gonna see you know how to convert him in Islam and then try then to make him uh, out of the body of this very boy so as you see the boy uh, what he's doing it is the jinn the spirit doing this kind of thing you see that the spirit making a lot of signs like Masonic signs Masonic signs you see it is not a Muslim it is just you know a Masonic and then he is doing whatever kind of signs so as to express his you know belongings alors donc chers internautes chers euh, téléspectateurs donc vous voyez euh, donc ce jean euh, cet esprit qui est en train de posséder donc le jeune homme qui est en train de faire des actions incroyables des signes incroyables des signes maçonniques donc des signes de franc-maçon et vous voyez donc euh, ce jean cet esprit a pu expliquer <coughs> qu'il a voulu gâter tout simplement euh, la vie donc de ce jeune homme parce qu'il sait, euh, lui et ses accompagnants, ils savent que vraiment ce jeune homme est un homme de Dieu. Et ils ne veulent pas qu'il devienne euh, quelqu'un dans la vie, donc parce qu'il euh, doit être une grande personnalité d'ici euh, quelque temps. C'est pourquoi ils sont en train de tout faire donc pour gaspiller ou bien pour gâter sa vie, pour gâcher sa vie. Donc c'est ça. on lui a posé la question selon laquelle s'il était euh, prêt à sortir du corps de ce jeune homme il a dit non c'est pas encore le moment je ne veux pas sortir parce que je veux tout simplement euh, le tuer et ce que vous devez comprendre c'est que les membres donc de sa famille ne croient pas en la puissance du grand marabout du maréchal Thierno Moulé Sow parce que hier quand le jeune homme a acheté un ticket Il a tout simplement appelé les membres de sa famille, mais le djinn qui est en lui, euh, qui est en lui l'esprit qui est en lui a tout simplement euh, mis quelque chose dans la tête donc des membres de sa famille qui ont voulu tout simplement euh, l'inciter à revenir à la maison. Mais grâce donc à Euh, donc une dame qui était là qui l'a persuadé donc euh, le djinn est resté euh, donc le jeune homme est resté et aujourd'hui on voit ce qui s'est passé donc sa famille qui ne croyait pas en lui les membres de sa famille qui ne croyaient pas donc en lui vont devoir croire à cette situation parce que là il est en train de se manifester il est en train donc de faire des gestes incroyables il est avec une force assez extraordinaire <coughs> so ladies and gents this is what is happening then we wait a little bit uh, what the marabu will do with this gin and, we will see and understand kind of gin is it <coughs> whether it is a snake or whether it is a tiger or like that noo tudd yow d' abord après ñu ñëw ci yeneen yi ñi ñaa ngi toog fii guddi na ah. nga ne yow la kan eh sigil wax ak man yow la kan c' kii c' est kii yow la kan noo tudd. tudd. moo tudd comment tu t'appelles. waxal sa tur noo tudd. mel na dafa bañ a wax de. non day wax force loolu bàyyi force la. <coughs> noo tudd. noo tudd. capitaine. capitaine. capitaine nga tudd. mais capitaine du tur. capitaine sa pas le c'est le nom de gradé ou bien c'est pas le nom comment tu t'appelles noo tudd. lan nga tudd sa tur c'est mon supérieur. ah ton. c'est ton supérieur qui t'a donné nom. moo ko jox moom capitaine la maanaam capitaine de quoi. capitaine de quoi exactement.

he yow capitaine lan nga maanaam ban yow ban façon nga maanaam sa jëmm ban jëmm nga yor yow faut parler avec moi ban jëmm nga yor ban jëmm nga ban jëmm nga yor ban ngay faral di nekk jaan walla muus wala garab wala lan ah tout n'importe quel genre yow ñaata nit ñaata jinne ñoo nekk ci xale bu góor bi ñaata yow ak ñaata jinne Mm. C'est l'armée. Hum? C'est l'armée. C'est mm, mm. ñoom dañoo bari quoi moom ak armée armée bi mbokk yi dégg loolu jinne bi nee na moom ak armée ñoom ñoo nekk ci xale bu góor bi waaw léegi nag mbokkam yi bu ñu seetaanee vidéo bi ah ñu fexe ñu ñëw du moom rek moo ñëw ah waaw léegi nag moo ngi noonu léegi nag toujours vidéo yi mel ni ngeen di gis maanaam boo leen gisee commencement bi maanaam fin bi doo leen ko gis parce que du ànd ak kenn day ñëw daanu ñu téye jinne bi wax loo ko jinne bi wax lépp après léegi euh, duñ ko mën a faj parce que du yor du yor xaalis parce que instant boobu jinne bi moo nekk mais bu dee am na ku mu àndal ñu wax ak kooku mu daal di génnee lu mu war a fay pour ñu génnee jinne bi ci moom parce que déjà jàpp ne jinne bi jinne baa ngi wax mais pour ñu génnee jinne bi déjà foog mu am ku mu àndal parce que tamit mënoo ku ñëw rek daanu nga génne jinneem loolu tamit mënul nekk parce que dañuy liggéey aussi dañuy dañuy liggéey dañoo yor ay emploi munul nekk ku ñëw rek nga faj ko mu dem déjà lool moo tax parfois doo leen gis ay maanaam civil quoi ay waaw ay civil loolu la déjà nee na dem na ci quarante sëriñ liñ ko def fii musuñu ko def déjà instant bi man sax yëngalu ko laalu ko sax bu ma ko laaloon du demee nii mais déjà lu ñu buggoon xam lu bari xam nañ ko ci moom mbokkam yi ak parent mi bu ñu seetaanee vidéo yi dañuy xam ne liñ daan daw depuis mu juddoo ñuy dem ci ay sëriñ di di dem fu ne di ko faji mënul wér tey laa ko capturé jàpp ko muy wax maanaam déjà ñoom tey lañ tey laa capturé parce que nee na papam dafa daw ba retraité pour faj ko dafa daw ba retraité pour faj ko fu ne la ko yóbbu yaayam aussi noonu dem na ba ñu magal li ñu mënoon mënatuñ ko moom lépp lu mu liggéey mu dem ci sëriñi pour faju kon xam nga ne moom sonn na moom xale bu góor bi maanaam yàqal na ko avenir gis ngeen jinne bi nee na kii nit ku mag la nit la ki nga xamante ne ëllëg dafa war a nekk dara léegi nag jinne bi jinne yi daal di koy dugg pour yàq ko pour ne ko pour lu mu war a nekk ëllëg dootu ko nekk parce que gis ngeen nee na bu yàggee dina ko dugal ci franc-maçonnerie maanaam dina ko dugal ci franc ñu bëri ñi ngeen di gis aussi ñu nekk ay góor jigéen tamit lii la rek maanaam jinne day dugg ci yow mu nekk jinne góor jigéen su ko defee muy def sa xel ci affaire góor demb rek am na ku fi ñëw ba ma ko xoolee ma xamal ko ne am na ay jinney nekk ci moom jinne góor jigéen mu ne ma parfois day toog xelam nekk ci góor en tant que xale bu góor buy jàng mu ne parfois day toog xelam nekk ci góor xam nga kooku bu yàggee su yàggee tuuti rek bu yàggee tuuti rek ndeysaan dana dem dana dem di seeg ay góor kon euh, li feebaru góor jigéen tamit lu bëri ngeen di gis góor jigéen feebar la feebaru jinne la jinne yi ñoo leen di dugg na leen def leen ay góor jigéen loolu nag garab bi am na fi parce que loolu sonal na États-Unis sonal na France ba ñun Sénégal fi da ngay gis ku jur sa doom mu jékki-jékki jël tànk bu bon fekk ne du loolu dafa am lu mu àndal li mu àndal mooy lan mooy mooy jinne jinne bi mooy nekk góor jigéen di ko xiir ci ay góor di ko yóbbu ci ay góor muy dem di séeg ay góor noonu lay màggaale noonu lay màggee ba dem nekk góor jigéen ñu bëri ñoo ngi nekk ay góor jigéen du seen coobare ay jinne góor jigéen ñoo leen di dugg ba ñu nekkee xale seen parents yi duñ ci xam dara di ko sooxaale yaa ngi dégg di ko sooxaale muy màgg ak loolu di màgg ak loolu mu dem ba yàq la ba détourné la ba yow à maanaam amur bi da lay dugg nga nekk góor jigéen kon nag nañu bàyyi xel ci loolu c'est important moo tax TMS TV day yee nit ñi barki dem boo Ndiaye am na benn xale bu nekk kees 19 ans la am defe naa ne déglu ngeen déglu ngeen déglu ngeen audio boobu noonu déglu ngeen ba ma capturé jinne bi jinne bi expliqué man maa koy dugg man maa koy xiir ci ay góor am na dof bu nekk seen koñ sax maa koy yóbbu muy seeku góor ki kon nag <clears throat> na parents yi di bàyyi xel ci njaboot gi bu baax a baax di seetlu parce que am na yi nga xamante ne dañ koy ruus a wax seen papa dañ koy ruus a wax seen yaay mais yow papa bi yow yaay di wéet sa doom bu góor di waxtaan ak moom ndànk ndànk ba mu mën a ñeme wax la yu bari parce que ñu bëri ñemewuñ seen papa ñemewuñ seen moo tax yu bëri duñ leen ko mën a wax ci mbedd bi lañ koy mën a partager wala ñu nëbb ko aussi muy yow yaay bi euh, ngay jege sa doom bu jigéen euh, di waxtaan ak moom di naxtaane ak moom dina la wax lu bari li nga xamante ne da koy dund parce que ñu bëri ñemewuñu seen parents yi parce que day am parfois ay parents yi nga xamante ne dañuy ñàngal neexuñu deret maanaam njaboot gi du la ñeme su ko defee day am yu bëri yu muy dund ak ay naqar ak ay tiis waaye du la ko ñeme wax wala murus la ko wax kon loolu tamit conseil la bi may conseiller parents yi parce que seen njaboot yi bëri ñoo ngi yàqu di sànku fekk ne ñoom a nañ ci jàpp waaye njaboot gi da di ragal loolu tamit foog ñu bàyyi ci xel parents yi bëri seen i doom a ngi sànku te donte a nañ ci def ay jéego ba du am waaye njaboot gi du leen ñeme benn da leen di ragal wala mu rus leen bu ko defee nag ah, loolu ngeen bàyyi xel ci loolu di waxtaan ak seen i njaboot di mën a ñuy mën a di leen ñeme bu ñu amee ay problème ay souci di leen ko mën a wax ngeen di partager ak njaboot gi pour ñu mën a mucc ci yi mel macha allah mbokk julliti kon nag ñoo ngi ci kër gi tey gis ngeen. déjà jinne bi wax na fi népp gis ngeen xale bu góor bi papam dafa dafa daw daw daw daw yóbbu hôpital yóbbu sëriñ ba retraité ndeysaan yaayam di di di jaay di yóbbu hôpital di yóbbu ci sëriñ ba mënatu ko léegi nag ndeysaan dafa jël relevé léegi lu mu liggéey dem ci sëriñ lu mu liggéey dem ci sëriñ nee na dem na ci quarante sëriñ dara gis nga tey dafa dafa gis ngeen gaay lu ñu wax bu jàkkaarloog néeg bi rek mbiic parce que xam na am na lu ne fii ci kër la xalif général des jinne le king of the king léegi nag jinne baa ngi noonu moo ngi manifesté wu moo ngi manifesté wu moo ngi manifesté wu le xalif général des jinne le koy gisee loolu. gis ngeen loolu. léegi nag ñii seen waa kër dañ doon weddi xam naa ne bu ñu gisee seen doom di def nii xam naa ne dinañ xam ne Thierno mule amul moroom parce que bëri na ñi nga xamante ne gëmuñu ma dañuy toog di wax ci man lu ñaaw waaye dañuy jékki-jékki seen fi seen mbokk wala jékki-jékki seen fi seen doog wala seen fi seen jabar wala seen nijaay ñu bëri gëmuñu li may def waaye nag c'est normal ndax nag li may def c'est la première fois africain noir le xalif général des jinne la king of the king ma indi ko fi jàkkaarloog jinne wax ak jinne xeex ak jinne duma jinne tuubal jinne c'est la première fois histoire histoire gresseur maanaam histoire fajkat histoire ñaan kat li may def nii amul kenn sëriñ yi boo demee saafara lañ lay jox demal sangu demal naan nangam nangam man nag dangay ñëw bu dee jinne buy daanu la ma téye jinne bi tuubal ko duma ko wax loo ko bu dee aussi jinne bu dul daanu ñu jox la garab nga sangu nga suuru jinne bi génn nga am jàmm léegi nag loolu nit ñi xamuñu ko miinaguñ ko moo tax duma leen blâmer damay bàyyi bu ñu doxee ci kanam dañuy comprendre déjà kii famille bu ñu seetaanee vidéo yi dañuy comprendre kan mooy Thierno Moule waaw <clears throat> waaw man moom duma ma balaame ñi may ñi nga xamante ne ñuy weddi dèjà kii mbokkam yi kenn gëmuma waaye gis nga dèjà lii rek tout le temps day wane ay preuve léegi nag moo ngi noonu moo ngi nii di ruube kër gi moo ngi jaxase kër gi instant bi du xale bu góor bi leer na ma ne xale bu góor bi nit la ku oyof nit la ki nga xamante ne bëriwul sax problème waaye rajaxe na kër gi yëpp waaw kon nag moo ngi noonu mbokk yi bu ko defee euh, à suivre moom déjà li ñu bëggoon ci moom am nañ ko dina bi wax na yëngatu na léegi nag le reste mbokkam yi suñu bëggee mu wër mu faju dañuy ñëw ba fii ñu génnee li ko topp waaw à suivre hmm. ci mooma ah? hmm. jeex na waaw